ngeen di jot suñuy si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen di abonné fii si ngeen mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal ko mën a xam li nga xam ne mooy xew si réew mi baalu xaq ñëpp di baal xaq ñëpp waaye bëgg a waxtaane tey tomb boo xam ne man na waa maa wax ne foo ma feneen waaye fii musuma cee wax man na am nag ak roofaloo ci wax yoo xam ne mën na am baat yu daan ñëw ak benn benn xalaat yu daan ñëw waaye mawduu bi moom fàttaliku ma ne mas na fee jaar laaj ko lool ndax nit bu amul lu dul lenn te fenn foo xam ne foofa rek la mën a dunde lenn loole kon ña bokk di dund foofee tey dunde lenn loole war nañoo waxtaan war nañoo fàttalente war nañoo yee ku doon nelaw warees naa xamal tam ki xamutoon muy lan muy lu ñuy wax lu ñuy wax xadaara saqaafa buñ ne fattafa shay'a tasqiifan mooy namm na mbir ma ak namm mu amaat beneen baat bu bokk ak namm aw amaanaa ñu di ko wax daas waajalee mbir ba mel nam war a mel ba man lan koy doye loolu des na ko tudde tasqiif muy saqaafa ñu ko wax culture bi te am ñu mottal baatu culture di ko wax guddee bëccëg ñoom bu nee culture fecc ak way la seen xel di def loolu loisir la gën a jege waaye nekkul culture mbaa bu dee culture tam ñëpp xaaj ci culture ñeneen waaye du suñu bu dee xadaara ñu naan ko

wala ca tool ga la wala ca namu tooge kon yooyu mboolem pencu réew yi bu ñu tëggee seen ndëndum kaay leen réew ya wuy ji yëpp mu ci aw doxinam tënku ci kaw xadaaraan ak saqaafaam réew moo moo koy gën a am pouvoir moo koy ëpp cër ndax dafa sukkandiku ci léppam waaye réew ma fa gën a bàyyi mooy réew ba nga xam ne bu wiijee culture ñeneen lay yóbbu ak saqaafam ñeneen lay yóbbu wala xadaaram ñeneen lay yóbbu noonu nag ci Sénégal suñu culture dafa jaxasoo ak lislaam dafa jaxasoo ak lislaam loolu nag ñi nga xam ne lislaam rek la daw dañ koy daw ñu daan jaan lu bari ci suñu culture buñ bëgg ñu adopté ko mu nekk suñu bos ndax daa taqaloo lislaam buñ bëgg ñu ànd dañ koy bëgg a garne tuqati ko li ci nanguwul lislaam dañuy am muy culture waaye ak ceddo lañ bëgg mu doon culture bu lañ ko xoolee da ngay gis ñiy def héros national ci Sénégal te diggante biñ dund diggante bu gàtt lañ doon dund ay xeex la gënoon a doon ak watu ay jubbu ak am nu muy demee. loolee lañ nangu mu doon culture nangu mu doon jàmbaar ñu jël loola def ko pour kooka nekk héros national loolu mooy buñ jëloon Cheikhul Khadim ne mooy héros national kon diine lañ def héros national moo tax duñ ko nangu buñ jëlee keneen loolu lay moo tax duñ ko nangu buñ ñoon Cheikh Omar Foutiyou Tall li mu def taal ci ay jihaat ak lim liggéey benn ceeb deful xaaj ba sax kenn deful dara ci lu ne waaye buñ ko ko defoon kon day diine te bëgguñ suñ dara diine kon mbokk yi am na jafe-jafe bu ci ni ñu war am ci suñu biir kal fan la ñu toppee ñan ñoo ko promouvoir ba mu mel noonu suñuy ñeme naa dugg ci bato bi jëm si Geesoor ma dajeeg koo xam ne nii dafa sant Traoré wala diw Diop dajeeg koo xam ne dafa sant Diatta ñu garante ci dara ba ne Diatta lay sant bu ñi fi loolu. xamoon nañ mu ñuy tabaxee société ba société bi mën yooyu yëpp boo ko xoolee dañ koo tàmbalee bëgg a wàcc sànni bële bëgg a tubaale buñ ca yamoon mu tane waaye ci wàllu diine rawatina ci wàllu tariqa moom la ñu yewoo di ku ñi ak ñi xamut ak ñi lii noon ñett mën nañoo ànd ki la réer ak ki nga xam ne nii iñaan muy sab noonu ak ki nga xam ne moom amul ci yow soxla ñooñu boo leen boolee ñoom ñëpp ñoo yem noonu la suñ bëggee teg suñu baaraam ci masque bi naan tariqa yi nga xam ne fu lislaam egg ci Sénégal ñooma ci wàllu diine ci wàllu social ci wàllu culture ci wàllu lu mën a doon ñoom ñooñu nag ñi ko réere te nekk ci ñoo ko bëgg a jël yàqe ko réew mi yàqe ko dina ci te loolu kenn waru ko nag nekk ci benn tariqa diw ma nekk ca beneen moo xam kilifa la mbooloo ne ci ginnaawam muy benn individu bu kenn toppul la muy jëf ci lu dul yoon nga bëgg koo xeexe fa mu jóge di leen ko adressé te moom la concerne yow yaa xamul dangaa war a xam ne diw mi dañ ko war a seetlu ci mbir mi nii lay sànni fee ndax bokkut ak fi muy askanoo daal bu dee dangaa maan mbokk yi ñetti tariqa yi fi nekk ci Sénégal tariqatul qadiriyya bi mu duggee ci réew mi moog lislaam moo fi ànd mooy tarixa bi njëkk a organisé daanaka ci àddina bi donte tasawuf yàgg na fi ca junne bi ak ña leen jiitu waaye organisation bi mu def ba liggéey ci Sénégal ak ci Afrique te jóge ca Bagdad loolu koo xam ne ñu baal ma koo xam ne doo gan ci diine ji bokkul say mbokk say maam xaajal lañ woon ci ay sabab ci wàllu social yoo xam ne boo ko xoolee ay éléments yu waral waroon a ameetu doole ameetu ko doole ndax ceeb yi ñëw na tubaab yi ñëw na nangam ak nangam tariqa tijaani ya jógee ca Maghrib di watatu di ñurux ba ak si Sénégal créé fi ay nit nit yàlla liggéey fi liggéey boo xam ne pour nga ci beneen réew fekk fa liggéey bu mel noonu yombut foo dem ñu nekk fa bind téere taal jihaad jàngale am jàngale koo xam ne doo gan ci diine ji gabaal ma boo limee say maam da am ñoo xam ne ci bari ci ñoom ay tijaan lañ kon ku fu amee ku ca bokk wala ku bokk fee ma njëkk a am melokaan wu mel mbaa mu di la laal di laal fi nga ko moom dong moom nga tontu ko moom bu dee kuy tontoo nga waaye boo ko jàllalee sa bopp sax daanaka yëgoo yëgoo waaye moom ngay ñu dem ba yàgg ci mille huit cent mu am ku gane àddina ci famille boo xam ne famille xam-xam la ci way jur wu góor ak wu jigéen monsieur Amadou Ba mu ñëw jël ñaari tariqa yooyee ndax tariqa xaadiree la fekk ci way juram ñu doon ay xaadir mu donn ko dem ba ginnaaw bi mu jël muy dem ci exil bi juróom-ñaari at yi am yëpp wér ci njàng la doon wér wax na ko sëñ Tuuba mu dem ba yàgg sallallahu alayhi wa sallam feeñ ko nan ko daan feeñ mu ne zaharani tuluu shamsin fi nadar an nujumi fi samaai wal qamar mu ne dama doon xool ay bidiw wala dama doon xool ci weer wi ay bidiw sax la wax waaye bi jant bi trente moo tax gisatuma leneen muy sallallahu alayhi wa mu ne baana li kulli man lahu wilaaya anna wasilati huwa rasul maaqulu rasul baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaaliqil baraaya mu ne koo xam ne tuuti ci wilaayaa ngi ci yow ne kintaanu yàlla la mu ñëw ne yonent bi léegi moom kese laa gis ne moo ma mat sëriñ mu xàll aw yoonam tudde ko yoonu tëj diit mooy yeesalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xanaa mi ngi yeesalal ñun bi fekkoon mu ñëw bokk na ca yeesal mboolem dëkk bu mu sanc mbaa ko sancal tur wa daal islaam daarul qudus daarul minam daarul salaam daarul muxti dëkk yi jeex mu ñëw ci turi njabootam ñëpp mu tudd leen yonent sallallahu alayhi wa sallam gis ne njabootam dañuy turi dañuy dañuy dañuy ñëpp mu ne sëñ Mbàkke Buso dimbale leen ma ci ahlu bayt sëñ Mbàkke Buso tuddee ahlu bayt Xasan Xuseynu nu nga ba ca saxaaba yi mu ne Cheikh Ibrahima Faati wuutu na ca saxaaba yi ñett daal Zubayru Ali nangam nangam kenn ku ci nekk mu islamiser turi dëkk yëpp turi turi nit ñi jaar foo xam ne l'histoire jàngale ku ñu nit koo xam ne jaar na foofu akub noonam jaar faat boroomam wër ba dellusiwaat doon ki bu doon kooku yooyu tam boo ko lii mu doon yow da ngaa bëriwut te xamuloo waaye nangul na la doon te andil na la kon mbokk yi man mu doon ak murit sadiq buy noyyi Serigne Touba ak lëngoog kii di taalibu Cheikh bu jeex tàkk lu bokk di di di naan ataaya di ganante di tudde di doom loolu yàqul sama murit bi yàqul ci kii waaye ñi ko bëgg a exploité nag ngir yàq ko réew mi loolu lañ a lànk te taxaw te bàyyi ñi xamut ñuy wax ñi xamut tey wax nañ leen noppi lool ñi xam te tëdd fi toog nëpp